ay ca murit Touba ca kanam weer wi dee na wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi man abaat aouzu billah bismillah inna waliyallah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi sant yàlla di julli bi sallallahu alayhi wa sant Cheikh na Ahmadal Khadim di ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla yàggal ko fi lool ànd ak ko wér ca kanam nooru daara yi commission des finances sous commission gestion des fonds ci weeru juin deux mille vingt et un zone nationale muy ci biir réew mi Touba cinquante neuf millions neuf cent un mille sept cent quarante Mbacké six cent quatre-vingt-dix mille Wave soixante-dix-huit cinq cent quarante-quatre trente-trois trente-trois cinq millions huit cent dix mille Orange Money sept cent quatre-vingt-dix mille Wave plateforme dix-huit millions deux cent vingt-deux mille six cent dix Orange Money plateforme cinq millions quatre cent soixante-seize mille quatre cent huit Dakar dix-huit millions deux cent vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-dix Rufisque quinze mille Bambey deux cent mille Diourbel un million six cinquante cinq mille Thiès cinquante mille Fouta quarante mille Daïra Babul Ayadi Agnam cent quinze mille cinq cent dix mille Kaolack trois millions deux cent cinquante deux mille Kébémer million deux cent treize cent cinquante mille Kolda trois cent cinquante trois mille Louga deux millions deux quarante huit mille Mbour trois millions deux cent mille Mudéri cinquante mille croisement Diaroumé quatre vingt deux mille département Dagana cent quinze mille Saint-Louis sept cent mille Tamba huit tournée massification deux millions deux cent mille Ngaye trois cent cinq mille Sanké Babé quatre-vingt mille Vélingara cent trente-cinq mille Darou Salam trois cent quatre-vingt mille Fouta Ndioum mille Oura deux cent mille Tawa cinquante mille Pekes cinquante-quatre mille Thialène Kagneen cinquante mille Sanc Daara cinquante mille Jifeer deux cinquante mille Fatick cent vingt Koungheul cent mille cotisation banque Outarde trois cent soixante seize mille quatre cent trente versement anonyme muy yi nga xam ne dañ ko dugal te yu joxewuñu seen tour deux millions cent soixante-huit mille deux cent trente kon nag li dugg ci biir réew mi muy zone nationale mi ngi toll ci cent trente-trois millions six cent cinquante-huit cinq yi nga xam ne dafa dellu lu génnoon te jotuta dem mu dikk mi euh, ngi toll ci cent soixante dix mille francs amande mu di ay daan yoo xam ne ñi jalgati jalgati nag lu mel ni euh, garabi koko yi nekk ci Touba ca kanam ci yoonu Mbàkke wi wala potalamp yi nga xam ne Touba ca kanam mu ngi koy taxawu euh, daan ya ñuy daan ñi nga xam ne ñoo koy yàq mi ngi toll ci liñ ci am ci mois de juin bi quatre cent mille francs ñu jàll ci zone Asie Japon trois cent mille li fa jóge lépp ci asi mu ngi toll kon ci trois cent mille zone Amérique Canada un million zéro quarante cinq Brésil deux cent cinq mille États-Unis cent trente mille cinq cents Argentine six cent sept mille cinq cent soixante kon li jóge ci zone Amérique mi ngi toll ci huit millions six cent quatre mille zéro soixante-trois Europe Italie

million sept cent quarante et mille quatre cent soixante kon zone Europe li fa jóge mi ngi toll ci vingt deux millions zéro soixante six cinq cent dix zone Afrique Cap-Vert cinquante et un mille Guinée équatoriale un million cent Gabon Mali Côte d'Ivoire un million cent Afrique du Sud neuf cent cinquante mille mille Maroc trois cent million huit cent trente mille Guinée-Bissau sept cent quatre kon ci zone Afrique jot nañ ci sept millions huit cent soixante mille neuf cent soixante li ñu jot dajale kon ci biir réew mi ak li jóge bitim réew ci weeru juin deux mille mi ngi toll ci cent soixante treize cent cinquante six mille zéro li jot a génn université bi. bâtiment bi fa Touba ca kanam di taxawee ci ndigalul sëriñ bi ci weer wi jot nañ caa def quarante millions huit cent dix mille deux cent quatre-vingt-cinq poste de santé bi nekk Boborel def nañ ci six cent trente-trois de santé Kër Gol un million zéro soixante un ci opération defar yoon yi jot nañ cee génne deux cent quarante deux millions cent un mille neuf cent quarante deux chantier base ba trois cent soixante dix mille cent cinquante commission communication trois cinquante mille logistique huit millions quatre cent douze mille trois cent vingt huit reboisement ñi yore wàllu garab yi soixante dix mille liy doxal liggéey bi muy fonctionnement deux millions quatre cent quatre vingt quinze mille sous commission leeral mu ñi yore wàllu làmp yi quatre millions six cent quarante cinq mille deux cent dix salaire yi ak sarge yi nga xam ne dafa doon lu sax di génn saa su nekk mu ngi nekk sept million cinq cent sept mille cinq cent commission administrative trois millions cinq cent vingt cinq mille deux cent commission organisation quatre millions neuf cent soixante neuf mille cinq cent commission massification deux millions zéro soixante douze deux cent quatre vingt ñi nga xam ne dañoo amoon lool ay jafe-jafe ci wàllu ndox Touba ca kanam xëccal leen ndox yóbbul leen ko fa toll na ci neuf millions cent vingt trois mille cinq cent commission membre six cent vingt cinq mille dolli ci frais bancaire

173 millions 156 mille 089 kon bu ñu xoolee li Touba ca kanam génn ci weeru juin ëpp na fuuf li mu dajale kon lii doon euh, li muy ëppee bi ci génn mi ngi toll ci cent cinquante cinq millions sept mille trois cent quarante kon nag li desoon ci compte yi ci weeru mai mi ngi tolloon ci neuf cinquante-huit millions cinq cent trente-trois zéro quatre bu ñu xoolee kon li des ci compte yi jamono ji ñu toll ci mois de juin mi ngi toll ci huit cent deux millions huit cent kon nag liggéey baa ngi noonu di jaajëfal bokk yépp di soññewaat di soññe di takkaat laxasaay di yéegal pas-pas yi di laaj lu ñu man di ko def fu ñu xam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ay ca murid Tuubaa ca kanam weer wi dee na wajalilaahi maskani misras mi abi jaayi xayri man aba